mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag tey am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy docteur Omar Gassama Omar Gassama nekk gynécologue colposcopiste docteur Gassama ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM laata loolu di la remercier vraiment ci nangu bi nga xamante ne nangu ko uyu ci suñu invitation bi merci beaucoup Fatou Baba Fall ci invitation bi. Mm-hmm. maa ngi leen di sant di leen di gërëm ak di remercier auditeurs yëpp. Euh, jaajëfal ko moom bu baax a baax tàmbaleeg émission bi rek ci virus bu ñuy duppee HPV non scientifique bi nekk papillomavirus xam naa ne HPV nag moom mooy gën a yomb ci auditeurs yi ñuy taal di déglu ñu koy faral di déglu souvent HPV HPV tey jii rek euh, docteur Gassama boo ñu gën gënoon xam lekk ni ñuy déglu virus boobu di papillonavirus lan nga ñu ci mën a wax. Euh, merci beaucoup euh, Fatou Baba HPV daal ay virus la. Mhm. ay virus la mooy virus yi xam nga dañu bëri xeet. Mhm. am na virus bu joxe si sida am na tamit virus boo xam mooy joxe corona. Mhm. donc ay virus la yoo xamante bëri na ëpp na sa à peu ñaari téeméeri virus yoo xamante ne mën nañu joxe jàngoro gu bëri mais jàngoro bu ñu gën a xam mhm. mooy cancer du col de l'utérus mooy feebar boo xamante mooy téye butit jurukaay bi ci suuf mhm. d'accord euh, feebar boobu dañ koy dégg tey foo tourné ñu naan cancer du col cancer du col ñu bëggoon xam rek euh, jàngoro boobu naka lañ koy doonante sa transmission boo ñu ko doon expliquer docteur Gassama euh, merci beaucoup cancer du col daal benn virus moo koy joxe. Mm-hmm. leer na ci biir xam-xam que virus ban moo koy joxe virus bi mi ñuy tudd papilloma virus humain. Mm-hmm. moom moo koy joxe bu ko joxee nag doo xëy rek am ko. man mm-hmm. euh, nga am virus bi nga toog fii ak ñaar fukki at wala lu ëpp ñaar fukki at avant muy euh, muy entraîner ay transformation yoo xamante moom mooy jur ëllëg cancer du col de l'utérus. d'accord euh, xam naa naa ne am na lu bëri loo xamante ne méthode peut-être relation sexuelle précoce da koy daal di jur ak lii di multi partenariat yi am ay partenaires yu bëri mais bu weesoo loolu ban moyen de transmission lañ ci gën a nemmeeku aussi. transmission bi daal comme namal ko waxee papillomavirus moo koy joxe te papillomavirus feebaru. néegu sëy la mhm. moom mooy condition boo xamante ne moo nécessaire moo obligatoire pour que jigéen ji maanaam cancer du col de l'utérus maintenant nag au delà du papillomavirus mhm. am na yeneen facteur de risque secondaire yoo xamante ne mën na fi nekk mooy jigéen goo xamante ne dafa teel a sëy mhm. jigéen joo xamante ne tamit euh, dafa sëy également góor yu également jigéen joo xamante ne tamit dafa teel a am doom également yooyu yëpp ay facteur de risque yoo xamante ne mii ci biir en dehors du papilloma. Mhm. d'accord euh, muy jàngoro boo xam ne xam naa ne ci jigéen ñi lañ koy gën nemmeeku tey jii ban symptôme euh, euh, lañ lañ ko mën a xàmmee naka lay manifester woo ci soxna yi. xam nga daal ñun lan moo ñu gënal sax mooy jigéen ji bañ a am cancer du col mais. Mhm. bu dee infection à papillomavirus la majeure partie du temps du am du am benn signe. Mhm. boo xamante ne mën nañu ne nii lay manifester du am benn signe. c'est ça également qui fait la gravité lool moo tax ñuy euh, ne jigéen yi ñu faral di dem defi dépistage pour dem xooli docteur yi wala sage-femme bi mm-hmm. bu mën a xool ci buti jurkaay bi sax mu góom gu ndaw boo xamante ne boo ko fi bàyyi mën na jur ëllëg cancer du col mm-hmm. euh, docteur Gassama su ma la déggee bu baax a baax euh, jàngoro boobu dafa mel ni ñu ci gën a bëri dafa asymptomatique mu mel ni kon nit ki mën na ko am ay at di ko sooxaale mais bés bu koy découvrir day fekk jàngoro bi law na xanaa dafa bokk bokk ci jàngoro yu ñuy duppee til euh, tueur silencieux ma mën naa wax effectivement que infection à papillomavirus dans la majeure partie des cas ce sont des infections asymptomatiques man nga ko am doo am benn signe booy am signe mooy entraîné na déjà ay lésions yoo xamante ne jóge nañu ci lésion benn yoo xamante ne nawul dara yëgg ci cancer ki maintenant nag délai apparition googu moo gudd loolu moo tax sa donne des possibilités de faire le dépistage ak ñu ma man leen également fekk tamit symptôme ak euh, localisation nag bu weesoo foofu ndax euh, euh, jàngoro bi virus bi di papillonavirus cancer au col de l'utérus rek la mën a jur comme jàngoro am na ay yeneen jàngoro yoo xam ne xam naa ni mën nañu wax ay malades associé lañu lan nga ñu ci mën a wax. très bien papillomavirus comme na ma la ko waxee daal moom cancer du col de l'utérus mooy feebar boo xamante moom la nit ñi gën a xam. Mm. mais au delà du papilloma au delà du cancer du col de l'utérus papillomavirus euh, bokk na ci loo xamante ne mën na joxe cancer de la vulve mën na joxe cancer du vagin mën na joxe cancer des cordes vocales cancer. amygdale mën na joxe tamit cancer du pénis également cancer de l'anus également ah. donc papillomavirus mën na joxe juróom-ñeenti cancer en fait. Mhm. Euh, mu mel ni wax nga ko cancer yi bëri na mais am na benn boo xamante ni tudd nga ko apparemment bu fekkente ne c'est médiatisé wala nit yi xam nañ ko mun naa ne du du ni loolu trop muy cancer bu pénis bi nga wax wala cancer bu anus bi. Mhm. Euh, waaye euh, ñun daal moo ñuy aar sa boo xoolee africain mooy la majeure partie des hommes dañuy ñuy xaraf donc xaraf googu c'est un facteur day protéger nga bañ am cancer du pénis mm-hmm. maintenant cancer anus gi moom mën na nekk en rapport ak des pratiques sexuelles yoo xamante ne mën nañ ko favoriser. Mhm. loolu ci pratique sexuelle yooyu mën na tax également nit nit ki am ëllëg cancer anus bi. dañuy des ci wàllu woowu ba léegi apparemment comme ni ma la ko waxee bu fekkente ne cancer gorge wala bu col de l'utérus c'est médiatisé nit yi xam nañ ko mais ndax euh, bi nga mujjee wax lool bi nga xamante ne moo soxal cancer góor yi bu ci mel ni anus wala pénis ba xam ñoom tamit seeni bos am na loo xamante ne moom moo koy mandargaal j'espère que bokkul. Euh, Euh, asymptomatique comme euh, yeneen yi am cancer daal moom habituellement foo ko gis xam nga day am ay symptômes. parce que symptômes yi mooy c'est une maladie bruyante. Mm-hmm. mais comme na ma la ko waxee lu gën mooy ñu bañ a yegg ci cancer par mm-hmm. papillomavirus am na histoire naturelle am mm-hmm. boo ko rencontré man nga def avant que muy nekk cancer. Euh, sànq ci sa biir wax yaa ngi wax ne eh, lu gën mooy xanaa ñu bañ fa yegg ba wax ba wax a tax sax soxna yi ñu gën a xam naa. di farlu di xool seen yaram bu ñu gisee loo xamante ne luñ ko farataalu gis ñu dem def dépistage dañuy wax frotti frotti frotti ndax euh, message bi souvent cible biñ ko wax a jox am nañu retour boobu. Euh, comme na ma la ko waxee heureusement euh, lu mel ni cancer du col loo xamante ne la mën nañ ko prévenir d'ailleurs c'est léegi organisation mondiale de la santé depuis 2018 bu ñuy wax ñu éliminer ko pour éliminer ko lenn mooy tax mooy foog ñu ñàkk xale yi. Mhm. xale yi yoo xam ne ils sont âgés entre six ñàkk xale yi foog mag yoo xamante ne am nañu vingt cinq ans ba soixante neuf ans ñu mën a def dépistage maintenant à partir de vingt cinq ans lan la la ñu mën a mhm. partir de 30 ans lan la ñu mën a def mooy test viral HPV. Mhm. maintenant nag à partir de 30 également selon les normes et protocoles du Sénégal mooy loo xamante ne euh, lan la ministère de la santé def euh, ci ay normes euh, mën nañu def également inspection visuelle après application acide acétique mooy benn acide acétique ngay jël nga def ko ci butit jurkaay pour xool. Mhm. est am na góom wala amul góom. waaw wax nga ko ci sa biir wax ah, ngir aar lii nga xamante ne moom moo di cancer bu col bu utérus am na benn vaccin bu ñu dugaloon ci programme élargi bu vaccination bu ñuy tubbee vaccin Gardasil bu ma juumlee moom ñu ngi ko fi dugal ci atum 2018 jagleel ko tout tànk yi 9 ans ba 13 ans mais ñu buggoon taxaw foofu rek docteur c'est vrai que dugal nañ ko fi ndax euh, adhésion bi yaakaar nga ne atteindre nañu cible bi ndax fii dañu xaw a am ay yenn pesanteur socioculturel yi ah. boo waxee vaccin rek am na ñoo xamante ne dañ ciy am ay connotations même si c'est pas avéré mais y a des croyances qui sont là mënuñu ci dara donc euh, question bi ma lay poser rek euh, ba xam depuis ba tey ji ñuy wax nii ndax jàpp nga ne pourcentage bu ñu fixé woon jëm 90 pour cent boobu ba léegi def nañ ci ay jéego wala bu dee sooxee na fu mu sooxee. Euh, jërëjëf en tout cas matière de vaccination comme noo ko waxee 2018 lañ ko dugal biir Sénégal octobre. Mm. ci début bi taux de couverture ba baaxoon na par ëppoon na sax quatre-vingt-quinze pour cent mais ba corona bi ñëwee ci 2 mars bi noonu 2 mars 2020 boobu la changé lu bëri taux de couverture bi euh, jamono ji mu ñuy tourner à peu près de quarante-cinq pour cent. Mhm. Mhm. kon mu mel ni dafa dafa dafa nekk en deçà. dafa wàcc bu baax a baax. Mhm. Euh, lu ko wàccee nag également bokk na ci. corona gi mais bokk na tamit ñoo xamante ne tamit gëmuñu vaccination ñoo xamante ne dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di nekk vaccin yi baaxul également loolu moo tax également nit ñi tamit hésité pour vacciner seen seen i doom mais loolu yëpp ay rumeur la loolu yëpp dara dara amu ci parce que vaccin yi ce sont des vaccins qui sont sûrs et des vaccins également efficaces yoo xamante ne du entraîner presque man naa ba ba un effet secondaire wax nga ko mais mu nekk rumeur yoo xamante ne boo jëlee la moitié de la population dañ ko approprié wu tey ji lan moo waroon nekk taxawaay waay kër docteur yi ñu nekk ci wàllu wér-gu-yaram bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo dénk lépp jëm ci wàllum santé bi les autorités entre autres ban taxawaay la ñu war a def vraiment donte ñu ngi sensibiliser nag par rapport ak vaccin yi mais ban taxawaay la ñu war a gën a mën a def pour vraiment nit yi eh, vraiment départir avec yenn croyance yi ñu am donte nag du facile merci beaucoup man man yaakaar naa daal vaccin bi ça n'a rien à voir autorité yi autorité mooy ñoom def nañu lan la ñu nar a mën a def mooy ñu rendre disponible vaccin bi. Mm-hmm. par quoi qu'on Sénégal bi di Afrique de l'Ouest bokk na ci dëkk ci dëkk njëkk am vaccin bi sinon c'est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest mm-hmm. bu am vaccin contre le cancer du col. Mm-hmm. loolu daal moom je pense que. jéego bu rëy la maintenant nag c'est à la population aux leaders d'opinion à la communauté communauté de s'engager pour que les filles soient vaccinées. Mm mm-hmm. Euh, docteur dañuy dellu si waat ci li nga xamante ne moom moo di HPV et papi papillonavirus mbokk auditeurs yi ngeen baal ñu moo bi dafa xaw nekk moo boo xamante ne c'est un peu lourd xam naa yéen ñi ñuy déglu sax di ngeen comprendre que ni du moo boo xamante ne dafay xaw a fluide dañuy des ci loolu ba léegi wax nañ ko am na ñoo xamante ne certainement ñoom ñooy gën a exposé mais ñu bëggoon xam ndax dafa am benn tranche d'âge particulière boo xamante ñoom ñoo mun a doomu aadama bi à n'importe quel moment de sa vie. merci beaucoup Fatou boo xoolee daal mbirum euh, papillomavirus. Mm-hmm. comme na ma la ko waxee. Euh, feebaru néegu sëy la c'est-à-dire que boo tam dañu remarqué que boo jëloon fukki jigéen mm-hmm. bu ñu tàmbalee sëy juróom-ñett yëpp ay am virus ba juróom-ñett yëpp a koy am mais heureusement juróom-ñett yooyu yëpp buñ ko amee six à treize pour cent rekk ci mën a am légion précancéreuse ñooñu ñoo ñooñu ñooy mën a am légion précancéreuse maintenant nag loolu ça dépend yàlla nu mu leen bindee seen si si système immunitaire mm-hmm. nu mu leen bindee ak également yeneen facteur de risque yoo xamante ne mën na ko joxe mm-hmm. waaw d'accord euh, sànq dafa mel ni wax nga ko ci say biiru wax bu ñu waxee HPV eh, ñu ci bëri bu fekkente ne infection bi dafa law a law ba à un certain moment bu chronique feebaree mën na am trait ba daal di dem ci li nga xamante ne moom mooy cancer am déet docteur Gassama. moom laa la bëgg wax boo xasee rencontré papillomavirus. pour que mu pour que Euh, day entraîner benn góom gu man naa nag intervalle entre góom gu ndaw googu ak cancer gi mën naa am ñaar fukki at. loolu moo moom mooy pas incubation gi mooy bokk na à ci histoire naturel mm-hmm. loolu mooy mooy moo tax. Mm-hmm. ñu mën a dépister jigéen ñi pour xoolee sax mu ñu góom gu ndaw boo xamante boo ko fi bayee. Mm-hmm. mën na jural la cancer du col. incubation bi moom lu mu wëndoo. boo xool incubation gi mooy période booy rencontré. virus bi ak signes yi. Mhm. loolu mooy incubation. Mhm. dafa am ab durée dafa am benn durée boo xoolee à peu près corona. Mm-hmm. incubation bi ça varie entre juróom-ñaari fan ba fukki fan ak ñeent. Mm-hmm. loolu moo tax en fait boo xooloon si ci début ba ñu daan mettre nit ñi en quarantaine pendant ces jours là pour xool est-ce qu'ils vont avoir les signes les signes pas. Mm-hmm. Euh, bi euh, incubation mun nañ ko natt ci durée bu gàtt wala durée bi mën na dem ay at. man naa incubation gi daal moom HPV pour que ñu xam ko parce que feebar la goo xamante ne du manifesté wu du am ay symptômes en fait mm-hmm. loolu moo tax daal mënoon incubation bi ci durée bi waaw waaw. d'accord bu ñu waxee eh, eh, eh, cancer wu col wala cancer de manière générale docteur Gassama lu ci bëri ci traitement yi dañ koy daal di jagleel lépp lu jëm ci chimiothérapie mais amaanam euh, chimiothérapie wala radiothérapie wala nu ñuy duppee euh, soins palliatifs daal di taxaw foofu rek euh, bëgg la laaj docteur de manière un peu plus détaillée bu ñu waxee cancer wax chimiothérapie mais chimiothérapie ci. ban moment la ko doomu aadama bi dañ ko koy prescrire mu xam ne vraiment euh, méthode bi moom mooy méthode boo xamante ne euh, mooy méthode bu mujj bi. merci beaucoup comme euh, naw lu gën mm-hmm. parce que cancer boo ko xasee am faj mi day laaj ay moyens yu bëri ci moyens yu bëri yooyu nag am na chirurgie am na chimiothérapie am na radiothérapie am na tamit ay soins palliatifs donc ça dépend en fait ci fan la feebar bi toll. Mm-hmm. malade gi mën na am cancer foog nga confirmer effectivement ni cancer la ban genre ni cancer la mm-hmm. boo ko confirmer foog nga defal ko benn bilan pour xam fan la feebar bi toll. Mm-hmm. maintenant en fonction de fal la feebar bi toll ngay ne man lii laa koy fajee ci faj boobu mën na am chirurgie ci faj moom mën na am radiothérapie ci faj moom tamit mën na am tamit également chimiothérapie tamit. Euh, euh, traitement bi dafay aaju par rapport ak degré wala type de maladie bi. très bien donc faj mi daal day aaju surtout ak type de cancer bi ak stade bi ak fan la feebar bi toll. Mm-hmm. loolu moo tax ñu mën a jël molécule yi boole leen wala mu aaju chirurgie wala aaju tamit xam nga radiothérapie. Mm-hmm. Euh, docteur Gassama euh, cancer euh, am na ci yoo xamante ne wala am na ci boo xamante ne dañuy wax gratuité jëm ci chimiothérapie bi mais laata ngay yegg ci chimio bi xam naa ne am na ay analyse ak ay. ci rajo wala li nga xamante ne vraiment boo koy def euh, du ma ne da ngay dem rek dem ci boutique bi jënd dara euh, c'est des maladies yoo xamante ne traitement bi dafa xaw a coûter lool lu bëggoon xam rek ndax am ngeen yéen ñi nga xamante ne ne yéen a yëngu ci wàllu woowu ñi am yooyu jàngoro bu ci mel ni cancer au col de l'utérus am nañu ay lu ñuy duppe ay subvention par rapport ak euh, ci seeni médicaments wala ci seeni prise en charge <laughs> merci beaucoup en tout cas état gi daal moom def na ci ay jéego yu mat par rapport ak subvention mhm. yeneen garab yi ci chimiothérapie bi ak ci radiothérapie bi mhm. yaa également la ligue sénégalaise également contre le cancer LISCA également des fois tamit mu subventionné également maladie pour que ñu mën a am traitement boo xamante ne soxla nañ ko pour xam nga faj cancer bi mhm. mm. euh, ndax euh, des fois seen subvention yi dina xaw a yemamaay yaakaar nga ne c'est c'est ay jéego la yaakaar nga ne politique boobu kese doy na pour mun vraiment jàppale ñi am yooyu la jàngoro. Euh, yaakaar naa daal ba tey xam nga des na. même bu dee état bi def na effort yu rëy mais des na. loolu moo tax daal la may conseil maladie mooy ñu bañ a toog ba am cancer lu gën daal prévenir ko par cancer du col loo xamante ne man nañ ko prévenir la en fait. prévention méttiwul prévention gi yomb na te mu ñuy reposer ci vaccination ak ci dépistage ak traitement des légions précancéreuses donc daal yaakaar naa également. Euh, ku bay mm, ba cancer gi yegg fii faj cancer noonu loo xamante ne yomb na. Mm-hmm. Euh, te yaakaar naa tam benn état mënul nekk day jël en charge de façon globale lépp loo xamante ne day xam euh, di dikk. jëm ci cancer bi. Euh, traitement bi wala autant pour moi prévention bi am na prévention primaire waaye tamit euh, am na lu ñuy duppee prévention secondaire euh, taxaw ci li nga xamante ne moom moo soxal prévention primaire bu jàngoro boobu di col de cancer au col de l'utérus bu ñu nee prévention primaire lan lañ ko mën a comprendre pour ñu ñuy déglu gën a xam. Euh, merci prévention primaire mooy dangay ngay fagaru avant que virus gi di ñëw. Mm-hmm. comme xam nañu que papillomavirus mooy joxe cancer du col donc da ngay fagaru avant muy ñëw. Mm-hmm. nooy fagaru avant muy ñëw d' abord premier mois gi mooy vaccination avant que ngay sëy ñu vacciner la boo amee euh, juróom-ñeenti at wala fukki at ak ñett mm-hmm. au delà de vaccination gi tam mooy nga moytu. nga bañ a teel sëy également góor pour également nga moytu également ba am peut-être am nga ko pour mën a sëy ak góor également mm-hmm. nga moytu tamit tux également ak mu moytu tamit naan aussi mm-hmm. loolu mooy aajum prévention primaire bi mm-hmm. Euh, bu gën a yaatu bi prévention secondaire bi xam naa ne kon ça doit être un peu plus élargi prévention secondaire yi ça repose en fait sur le dépistage ak traitement des légions précancéreuses te loolu tamit Sénégal tey na na tamit ay ci ci euh, euh, sànq ba léegi maa ngi lay dégg ngay wax euh, vaccination vaccination vaccination bi am na solo amaanama mais est dina dina dina protéger. vaccination yi daal tey la ma la mën a xamal Fatou mooy tey ci àddina gi on a plus de dix ans de recul donc vaccination googu il efficace vaccination googu day protéger contre cancer du col day protéger également contre les autres. Mm -hmm. infections associées Euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bi di SOS santé nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dara ki nga xamante ne moom moo di docteur Omar Gassama Omar Gassama nekk euh, gynécologue. colposcopiste tey mooy suñu gañ gan ci suñu émission bii di SOS santé tey jii rek docteur dañu des ba léegi ci wàllu wow di cancer cole col de l'utérus ay année ngi nii chaque fois dañuy wax euh, cancer bi mu ngi law cancer bi mu law mais ñu taxaw rek euh, des ci fànn boobu wax rek tey bu ñu doon wax cancer cole col de l'utérus fii ci Sénégal moo xam ci chiffre moo xam ci pourcentage xam naa sax chiffre bi nga am ko du nekk yoo xamante ne dafay xaw a yomb mais nga defal ñu rek benn petit rappel par rapport ak certainement chiffres yi. Euh, jërëjëf Fatou euh, boo xoolee daal. dernier statistique yu ñu am mooy statistique euh, du centre international de recherche contre le cancer moom yaakaar na daal biir Sénégal chaque année. Mm-hmm. Euh, y a plus de mille neuf cent nouveaux cas man pour man loolu néew na mën nañu dem sa ba deux mille cinq des fois. Mm-hmm. mu am ñoo ne am nañu cancer duñu yegg hôpital. Mm-hmm. donc mën nañu ne à peu près mat na wala sa ëpp na deux mille cinq cent. Euh, biiri Sénégal mooy xam du col de l'utérus chiffres. mu mel ni c'est des chiffres qui font froid dans le dos. oui ce sont des chiffres yoo xamante ne qui font froid dans le dos si on sait que c'est une maladie xam évitable. Mm-hmm. d'accord c'est une maladie évitable mais apparemment sensibilisation xam naa des na comme ni nga ko waxee am na ñoo xamante ne dañuy am jàngoro bi te duñu dem way kër docteur ba moom moo waral am chiffres yu essentiels yi wala chiffres yu officiels yi dafay nekk loo xamante ne xaw na jafe docteur dañuy benn soo daal di laal ci li nga xamante ne mooy bëccëg bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllum euh, xeex lii di papillomavirus te àdduna wërngal këpp di ko màggal le 4 mars euh, bu jot Sénégal tamit xam naa ne du des euh, ginnaaw ndax bëcëg bu ñu mel dañ koy màggal saa su nekk mu nekk journée mondiale de la lutte contre le papillomavirus ñu koy célébrer 4 mars bu nekk tey jii docteur bu ñu waxee bëccëg bu ñu mel ban ban ban ban ban ban ban taxawaay pour ngeen ci fas yéene def vraiment pour nit yi xam que ni vraiment il faudrait que ñu jël seen matuwaay ba euh, moytandiku jàngoro bi nga xamante ne comme ni nga ko waxee chiffres yi c'est des chiffres qui font froid dans le dos. waya euh, ah, comme euh, nawal ko waxee rek sànq daal moom papillomavirus daal foog ñëpp jàpp ci pour xeex ci loolu moo tax société sénégalaise de colposcopie ak pathologie liée au papillomavirus mu lëkkaloo ak international papillomavirus pour mener également une journée de sensibilisation ak de plaidoyer. Mm-hmm. par rapport au papillomavirus. Mm-hmm. ñoo xamante ne ñoom ñooy joxe neuf cancers. Mm-hmm. te cancer bu ñu ci gën a xam mooy cancer du col de l'utérus. d'accord euh, ngeen choisir comme thème zéro cancer du col bi lan moo ko waral docteur Gassama. Euh, thème bi daal Fatou lan moo ko waral parce que on s'est rendu compte que le cancer du col de l'utérus c'est cancer évitable à pour cent et que engagement rek moo ko fi mën a jëlee engagement nag à tous les niveaux engagement de la communauté pour que communauté gi ci waajur yi ñu tàmbale d'abord dem ñàkk xale yi à partir de waajur yi également décideurs yi également engagé également à accompagner également les couches vulnérables mm. pour que ñu mën a dépister wu ñu mën leen également faj également mais pour que également état bi tamit engagé mm-hmm. pour que Sénégal foo munti nekk boo amee cancer du col nga mën a bénéficier de chimiothérapie ou de radiothérapie également mm-hmm. maintenant nous on s'est engagé dans le processus d'élimination mm-hmm. mooy bëgg nañu daal peut-être que fii yàlla bu ñu fi bàyyee fekk fukki at wala fekk fanweeri at cancer du col de l'utérus mm-hmm. mën a nekk feebar boo xamante ne mi ngi suñu gannaaw mooy daal bu ñu mënee am quatre-vingt-dix pour cent des filles qui doivent être vaccinées mm-hmm. bu ñu mënee am pour cent des femmes qui doivent être dépistées bu ñu mënee am pour cent des femmes qui euh, qui peuvent avoir, euh, qui peuvent bénéficier de radiothérapie ak de chimiothérapie ñu amee am cancer du col. Mm-hmm. Euh, docteur wax nga ko il faut que ñu def engagement engagement boobu day nekk individuel collectif ak euh, jëm ci ba ci wàllu gouvernement bi bu bu ko defee cancer du col wax nga ko ci sa biir wax nee nga nekk na jàngoro boo xamante ne c'est inévitable mais docteur euh, xam naa li koy gën a yokk mooy comme wax nañ ko jàngoro bi dafa am tous ce qui a trait avec la sexualité te fii boo sexualité gars yi dañuy jàpp ne dafa nekk sujet à tabou ndax loolu aussi tamit mënul gangréner eh, wala mënul freiner un tout petit peu politique bi ngir euh, xeex ko wala ngir gën ko delloo ginnaaw. yaakaar naa daal du ko daaloo ginnaaw yaakaar naa daal moom tey sexualité naru mën a nekk benn sujet tabou. Mm-hmm. nar nañ ci mën a waxtaan. nan nañ ci mën a xool loo xamante ne gën na ci askan gi en matière de sexualité loo xamante ne tamit gënul tamit ci askan gi tamit en matière de sexualité tamit ñu mën man ko waxtaan. Mm-hmm. mais lu gën daal mooy ñu continuer sensibilisation ak plaidoyer bi pour que malade yi xam daal que papillomavirus benn virus la boo xamante ne ci biir néegu sëy lay nekk te man nañ ko mën nañ ko éviter. d'accord euh, ci biir néegu sëy lay bokk bokk na ci li koy gën a indi wax nga ko sëy bu bëri bi wala sëy bu teel bi wala itam tamit di nga xamante ne mooy am ay partenaires yu bëri ci suñu mbokku jigéen yi mais ñu bëggoon la laaj rek euh, benn fànn docteur gis nañu fii ci Sénégal euh, soxna yi bu ñuy sëy dañuy am nu ñuy sëyee yenn saa ñu jël ay aphrodisiaque moo xam ay produits naturels di ko utiliser certainement euh, am na luñ ciy xaar lu ci mel ni jël ay jinjeer wala yenn produits naturels yi ñuy faratal di utiliser ngir certainement neexal seen néegu sëy tey jii docteur ñu bëggoon xam rek ndax yooyu ñuy jëf jëfandikoo dafa am cause à effet et par rapport ak jàngoro bi di cancer bu col de l'utérus Euh, merci mais daal la ma xam daal mooy boo xool aphrodisiaque yooyu mënuma ci prononcé wu trop parce que xam nga médecine moderne ci ay preuve la basé wu j'ai pas vu de preuve yoo xamante ne mën na nekk aphrodisiaque yi mën nañ ko incriminer mais la ma leer daal lépp luy cigarette lépp luy sangara mhm. incriminer nañ ko ci cancer du col au delà également Euh, facteur de risque central bi mooy mooy mooy HPV. Mm-hmm. moom moo fi nekk ñu wër ko. Mm-hmm. Euh, mooy tukki mooy tukki aphrodisiaque yi moom mënuma ci prononcé wu de façon exacte bu dee euh, si je me base sur la médecine basée sur les preuves. d'accord docteur Oumar Gassama nga nekk gynécologue gynécologue dañ koy farataal di dégg gynécologue ñu ci dañ koy farataal di dégg mais col colposcopiste bi ñu bëggoon xam rek nga wax ñu ndax benn tur bu bees la wala dafa nekk benn pàcc boo xamante ne dafa laal lépp jëm ci wàllum gynécologie bu dee am na différence bien sûr. Euh, merci beaucoup euh, <laughs> colposcopiste daal euh, benn sous spécialité la ci biiri euh, gynécologie mooy koo xamante ne liggéeyam mooy xool. butitu jur ki aji si suuf ak jigéen di fu muy séyee également pour xool est-ce que amul des fois mhm. ay góom yu daw yoo xamante ne boo leen fi bàyyee mën na jur ëllëg mhm. euh, moom euh, yomb na am déet nawul lu metti yombul tamit torop aaju na tamit nga am benn benn formation bu ndaw mhm. formation ji heureusement université Cheikh Anta daf koy di di di dispensé. Mm-hmm. sur un an la. d'accord un an la euh, ñu man euh, la yokkal xam-xam également loo xamante ne ça a à feebar yoo xamante ne mën na téye bu ci jur gaa gi si wala jigéen di fu muy sëy. Mm-hmm. Euh, sa médecine da ngay sa formation médecine à part maanaam am bac plus sept wala am bac plus une année parallèle ou bien c'est inclus. Euh, faatu daal c'est pas inclus da ngay def d'abord sa formation médecine général mm-hmm. boo xamante ne mën na varier en sept à huit ans mm-hmm. boo ko defee man nga tàmbali c'est spécialisation maintenant spécialisation bi nag ça dépend de de ban spécialité nga bëgg def mm-hmm. na def cinq ans maintenant nag ci sa biir spécialisation googu nga def diplôme universitaire gi euh, tey jii seen lim bari na tey euh, bu ma mujjee compter daal ñoo ngi à peu près quatre-vingts Euh, ci quatre-vingts personnes euh, léegi daal ñu mot à peu près téeméeri net nit ci xam biir Sénégal bi. Mhm. Euh, quatre-vingts wala quatre-vingt-cinq pour une population qui fait plus de seize millions mu mel ni kon ratio bi atteindre guñ ko xanaa dafa nekk loo xamante ne buñ ko dugalee ci suñu médecine taxu ko yàggam déet. boo xoolee tamit yàggul trop parce que c'est vrai que biir Sénégal amoon na ñoo xam yàgg nañu def colposcopie c' est l' occasion pour moi ma rendre hommage à pionnier bi mooy docteur Abdoul Aziz Kassé parce que yaakaar naa ñun ñëpp moom moo ñu inspiré ba ñu dem tuugal jéem a dem jàngi loolu ñoo ma mën a ko di développer maintenant biir Sénégal daal diplôme universitaire bi ñu ngi koy instauré deux mille dix-sept lañ ko fi instauré samay patron ñoom ñoo ko fi instauré mooy professeur Jean Charles Moreau professeur Alassane Diouf professeur Philippe Morel ak professeur Mamadou Lamine Cissé mm-hmm. ñoom ñoo fii def boobu diplôme pour que daal ñu man ko jàngale biir université Cheikh Anta Diop. kon bu ma la déggee xam naa yéen yéenay deuxième promotion bi de am déet. du ñun deuxième promotion bi parce que ñu ngi koy commencé enseigner depuis deux mille di di di di di di di dix-sept bokk. donc man tamit bokk naa ci enseignant yooyu. donc man naa wax léegi daal on doit être la cinquième wala à la sixième ama promotion. d'accord docteur Omar Gassama dañuy des ci wàllu woowu ba léegi des ci lii di gynécologue bi colposcopie colposcopiste bi mu mel ni da ngeen am euh, benn association wala benn kuréel boo xamante ne yéen a ko bokk di dóorandoo di xàccandoo ñu bëggoon xam rek euh, naam euh, bañ ko dugalee ci médecine bi yàggul bëggoon xam association boobu tamit ci ban année ngeen ko taxawalee ak tamit ci yan ci yan façon ngeen ko taxawalee. merci beaucoup Fatou association googu daal dañu xool depuis 2017 comme. ñoo ngi former ñu bëre mhm. nit ñi exprimer woon le besoin ñu am benn association boo xamante mën nañ fa toog mën nañu échange mhm. lépp loo xamante ne mën na jëm ci cancer du col wala loo xamante ne ëpp na ko mhm. comme ce qui se fait également sur le plan international boo demee ci de dëkku Europe yu bëre wala di dëkku Amérique yu bëre am na benn kuréel boo xamante ne muy regroupé ñëpp ñoo xamante ci colposcopie la ñu yëngatu maintenant nag le but de association bi mooy xeex mhm. xeex gu njëkk gi mooy xeex combattre le cancer du col. Mmh. Sur tous en faisant la sensibilisation, en faisant également des activités de dépistage également, de traitement également. Mm-hmm. Euh, bu ñu association wax adhésion euh, adhésion bi comment est-ce que euh, ça se passe. boo boo merci beaucoup association la boo xamante ne xam nga biir Sénégal association yi am na lan moo donc association bi respecté na réglementation. boobu yëpp donc euh, def na demande récépissé am nañu dépôt de euh, demande xam récépissé boobu mm-hmm. donc am na également benn statut ak règlement intérieur mm-hmm. règle bu njëkk ji gaal mooy mën nga nekk médecin mm-hmm. boo newul médecin mën nga nekk sage femme comme mën nga nekk également infirmier nga dëkk ci biir yi réew mi wala nga bokk Afrique boo bokkul Afrique tamit man nga nekk ci biir àddina gi également dans ce cas da ngay nekk rek benn membre associé euh, euh, association à but yëpp am ngeen ay support ay partenariat wala ministère euh, de la santé ak action sociale ñu leen di faratal di accompagner ndax euh, du ñàkk ngeen di faratal di def ay mouvement de sensibilisation ay campagne de dépistage wala xeet gu ni mel euh, seen support financier bu ma ko mën a waxee noonu comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir. merci beaucoup daal yaa yaakaar naa daal on par l'engagement de nous-mêmes dañuy jël suñu poste def ko ci par loo xamante ne la dañ ko gëm en fait dañ ko gëm parce que man muy wax ak yow am naa mbokk yoo xamante ne cancer du col de l'utérus moom moo leen faat pour man c'est l'un des plus grands combats xam de ma vie au-delà de toute considération mooy loo xamante ne daal combat la boo xamante ne ñu ñor nañu c'est une association à non du lucratif boo xamante ne fonds yi ci cotisation membre yi lay jógee mm-hmm. ñoom ñooy jël seen xaalis def ci y'a également de euh, des partenaires également ñooy tam ñoo c'est l'occasion pour moi de remercier également le ministère de la santé également qui nous appuie beaucoup également mm-hmm. qui nous aide également bi boo xoolee sa activité bi sax ñoom ñoo ko jël pour appuyer ñu ñu ma mën ko organiser mm-hmm. au-delà du ministère de la santé on a vraiment des partenaires ICON xam benn entreprise la boo xamoon te te te Sénégal bi ñoom dès le début ñoo ñoo ñoo ñuy accompagner. Mm-hmm. bu baax a baax. Mm-hmm. c'est l'occasion pour moi tamit ma remercier également waa centre d'excellence africain également ñoo xamante ne tamit ñuy appuyer également xam sur tous les plans tamit. Mm-hmm. Euh, seen partenariat ak euh, ministère de la santé ak action sociale c'est basé sur quoi dañ leen di yebal ay maladies fay moitié wala dañuy farataal di jël ay prise en charge de manière un peu plus détaillée. de manière un peu plus détaillé xam nga ñun boo xoolee association bi elle a une triple une quadruple vocation. Mm-hmm. formation la d'abord. d'accord mooy ñun dañuy participer ci formation sage femme yi ak formation médecin yi. Mm-hmm. biir Sénégal gi ci dëkk yëpp ci ci région yëpp pour que ñu man leen yokk xam-xam ñu man leen ne également dépistage cancer du col. Mm-hmm. ne ñi lay demee. delà de loolu également ñu ngi organiser également ay activités de soins également ak de traitement également mooy malade yoo xamante ne am nañu góom yu ndaw yoo xamante ne boo ko fi bàyyi mën a jur cancer également mm-hmm. dañ leen di dafa dafa dafa dafa faj aussi mm-hmm. euh, volet sensibilisation bi certainement war na nekk volet boo xamante ne moom mooy gën a jël euh, seen temps wala moom mooy gën a nécessité lépp lu jëm ci wàllum aspect financier parce que quand on parle de formation am na ay préalable yoo xamante ne suppose. waaw mais yooyu yëpp heureusement pour la formation c'est le ministère de la santé ak say partenaires ñoom ñooy appuyer ñooy appuyer région médicale yu bëri habituellement pour que ñun ñu mën a ñoo appuyer leen des fois appui bi société bi elle se déplace ah bénévolement. d'accord dañuy dem nekk ak ñoom ay trois jours ba bénévolement pour appuyer leen par loo xamante ne la dañ ko gëm également mm-hmm. yaakaar nañ daal que boobu buñ leen appuyer ëllëg. bu ñu toogee peut-être fii ak bu ñu demee tam ba nekk mag également mën nañu toog également am benn plaisir ne ah man daal en tel moment de ma vie jóg naa xeex pour xamal sama réew. Mhm. d' accord euh, docteur euh, Omar dañuy des ci wàllu woowu ba léegi ah ñëw ba léegi ci seen euh, association bi certainement bëri ngeen ñi leen di jàppale am ngeen ay adhésion bi ngeen ko taxawalee ba léegi tey jii boo ñu mënoon defal benn petite évaluation bi ngeen taxawalee seen association bi ba léegi e benn euh, petite évaluation lan ngeen ci def loo xamante ne jàpp ngeen ne mérité na ngeen gën ko approfondir. merci beaucoup ah luñ ci gën a def dès le début par association yi mën naa wax daaw lañ ko sànni. d'accord mais daaw rek ci octobre rose gi rek euh, def nañu ay activités de traitement parce que ñun lu ñu remarqué woon mooy jigéen ñi dañ leen daan dépister mais kenn xam nga daanu leen faj. donc loolu moo tax ñu njëkk organiser ñu suñu journée roi Baudouin c'est l'occasion également pour moi également ñu remercier également directeur hôpital roi Baudouin moo xamante ne appuyé woon nañu bu baax a baax mm-hmm. boobu on en a profité pour faj également téeméeri fab yoo xam ne amoon nañu góom mm-hmm. moo ko bàyyoon ëllëg mënoon na xam mënoon naa ni cancer du col du terrain. Mhm. d'accord ak yeneen perspectives yi ngeen am euh, jëm ci seen association bi. perspective yi daal mooy euh, mooy mooy euh, la célébration de la journée internationale contre les papillomavirus boobu ci àddina yëpp c'est le 4 mars mm-hmm. boo xoolee tàmbale nañ ko par d'abord une conférence de presse qu'on avait organisée le 18 février Euh, moment également pour moi également me remercier également la presse également pour pour leur soutien mm-hmm. pour, pour également leur appui également parce affaire gi yaakaar naa dëkk bi ñu bëri bëri xam nga te yëg nañ ko en dehors de la célébration là dañuy organiser également benn congrès annuel ba la ñuy organiser le le quatre ak le cinq mars également. Euh, congrès boobu lan moo nar nekk au menu ak ay am ngeen ay activités ay conférences de presse euh, di ngeen sensibiliser ndaw yi mag yi lan mooy nekk euh, seen activités yi ci congrès deux jours yi. ci congrès deux jours yi première journée bi vendredi la. vendredi daal dañuy wax papillomavirus. Mhm. du début à la fin lan mooy virus cancer yu muy entraîné lépp dañ ciy wax ci ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na seen biir spécialité. Mhm. muy ORL yi muy gynécologue yi muy euh, dermatologue yi muy ñoo xam ne daal seen xam-xam màcc na ci loolu. Mhm. on va faire le tour xam de la question pour xool nag léegi bu ñu ñëwee tamit on va parler également de la vaccination contre le cancer du col également de long à large. démarche euh, loolu seenu bajaan daf ci wax keneen tamit day tamit wax ci également lan mooy HPV ci jour googu euh, di di di di 17 heures mooy cérémonie d'ouverture ak de lancement bi incha allah rabi ministre de la santé moo ko war a présider day am benn activité euh, communautaire bu rëy boo xamante ne day day mu ma mu ma mu ma mobiliser ñu bëri. Mm-hmm. toutes les couches de la société. Mm-hmm. les mamans les jeunes filles ak les pères également. Mm-hmm. ñëpp ñoo également mu nekk daal benn manifestation bu rëy. d'accord euh, docteur ñu bëggoon xam rek. Euh, ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk à l'intérieur du pays sànq wax nañ ko am na bu ñu ci war a def am na information yu bëri ñu ci war a def mais ndax di ngeen di farataal di bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk à l'intérieur du pays pour gën a mën a vraiment décentraliser seen action yi ngeen di farataal di def wala tout c'est centralisé à Dakar. Euh, merci beaucoup ah boo xoolee nee naa la que nous on a des objectifs clairs et précis. Mm-hmm. lu ñu gën a jógal mooy biir Sénégal nit ki fu mu mën a nekk ci région bu mu mën a nekk wala ci département bu mu mënti nekk bu soxlee colposcopie ñu mën ko fa def. Mm-hmm. ñu mën ko fa def également te boo xoolee également tey ci région yu bëre bëri bëri am nañ fa également ay nit ñoo xamante ils sont là-bas. Mhm. fii la ñu ñëwee ñu jàng ñu accepté dalu ci biir région yi pour di aider également population yi. Mhm. boo xoolee au-delà de ça également on est très actif également sur tout ce qui est plateforme digitale. Mhm. nous sommes sur Facebook nous sommes sur Twitter nous sommes sur LinkedIn nous sommes sur Instagram également il a également un site xamante ma mën nga am information yëpp par rapport par rapport ak cancer du col mm-hmm. ak comment également prévenir également le cancer également xam du col aussi mm-hmm. d'accord euh, gynécologue colposcopiste. Euh, comment est-ce que ça se porte le métier euh, euh, yaakaar naa daal gynécologie obstétrique c'est l'une des mes spécialités je vais prêcher évidemment pour moi paroisse te yaakaar naa également colposcopiste également benn suñu spécialité la boo xamante ne daal man mooy loo xamante ne daal moom laa gëm ci loolu laay yëngu parce que je pense que su ma ci nekkee man naa rendre service en fait aux femmes. Mm-hmm. d'accord mu mel ni ñoo ko déggandoo moom taxaw na tem euh, tagg na boppam ci spécialité bi boobu nga xamante ne moom lay daal di yëngatu mais bu ñu jëlee rek lépp lu jëm ci wàllum gynécologue tey jii yaakaar yaakaar nga ne bu weesoo pàcc bi nga xamante ne moom mooy colposcopiste bi nga xamante ne benn pàcc la ci wàllu gynécologie ndax euh, gynécologue yi euh, xaw nañu bari nañu ba war a mën a def seen liggéey comme il se doit parce que euh, ku tawat di nga dem hôpital rawatina jigéen yi nga xamante ne ñoom la ñuy farataal di suivre pas uniquement à à Dakar bu ma nee doy bi mooy c'est sur le plan national à l'intérieur du pays. Euh, merci beaucoup daal je sais que le Sénégal a fait des efforts mais euh, nombre de gynécologues yi ba ba tey doy ñu. Mhm. doy ñu néew nañu trop même si des xam efforts ont été faits. Mhm. et euh, que faire pour combler ci fàtt euh, gap boobu. mooy mooy heureusement tey biir Sénégal y a d'autres universités qui ont été euh, sur pied euh, au-delà de l'université Cheikh Anta Euh, yaakaar naa université yooyu la ñu nar a mën a gën a appuyer pour accélérer la formation. Mm-hmm. loolu rek nar a mën a tax ñu yokk nombre bi ak également état gi tamit di recruter également les gynécologues sortants également. Mm-hmm. d'accord euh, mu mel ni waxtaan wi am na solo waaye luñ cëraloon ci waxtu wi yegg nañ ca tey ji docteur Omar Gassama lan ngay wax ci li nga xamante ne moom moo di. cancer col de l'utérus bi su dee am na loo ci yokk lan nga ñu ci mën a wax. Euh, merci beaucoup daal la ma ci mën a yokk. cancer du col de l'utérus mooy feebar boo xamante ne c'est évitable à cent pour cent mhm. ni a éviter mooy vacciner xale yi bu ñu amee euh, juróom benni at ba fukki at ak ñett ak tamit ñu dépister également jigéen bu ñu xasee am fanweeri at ak juróom benn fukki at ak juróom-ñeent également ñu dépister leen faj leen pour xoolee am nañu góom gu daaw boo ko fi bàyyee mën na jur jur ëllëg ba benn cancer du col de l'utérus. Euh, euh, docteur euh, réticence dañ koy farataal di nemmeeku mais ndax dafa yegg ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy farataal di nekk ci néegu sëy yi dañ koy def de manière spontanée wala am na benn blocage buy am des fois à leur niveau. je pense que daal narul mën a am benn blocage ñëpp ci nar a mën a engagé benn raf la la war a nekk. c'est-à-dire que bëgg jigéen bu tàmbalee sëy boo demee gis sa médecin wala sage-femme nar na mën a am réflexe. xool bu ci jur kares amul góom gu ndaw boo xamante boo ko fi bayee mën na jural le cancer. Euh, ngeen di waajal euh, congrès bu mag muy vendredi bi le 4 ak le euh, bu weesoo programme wu 4 bi le 5 lan ngeen war a def activité phare. le le cinq daal journée la boo xam ne on va parler du dépistage du cancer du col de l'utérus de de long mm-hmm. de long à toutes les méthodes de dépistage dañ ciy wax également ak experts yoo xamante ne seen xam-xam man ci loolu de de long à large. c'est ouvert au euh, inscription. bi comment est-ce que ça se ça va se passer pour ñi ñuy déglu certainement ils sont intéressés moom nee na samedi bi dafay am euh, dépistage léegi rek. rek euh, docteur euh, Oumar Gassama boo ñu mënoon wax inscription yi comment est-ce que cela se passe ngir auditeurs yi ñuy déglu certainement dina am ñu mu ci intéressé. mais c'est que dépistage bi du ñu dépister nii day am ay conférences scientifiques sur le dépistage du cancer du col utérin. maintenant pour participer ci congrès bi ça dépend bu dee médecin nga cinquante mille nga war a fay bu dee infirmier nga wala sage-femme vingt cinq mille ngay fay. mais docteur yéen yéen seen congrès bi ah. ah dafa am dafa am na lu mu rax de. <laughs> boo boo xoolee xam raxul boo xoolee xaalis googu yëpp dañ koy jëlaat. Mm. ñooñu investir ko encore ci maladie encore te boo jëlee ay nit nga leen congrès foog ñu ndekki foog ñu añ ak. seen prise en charge daal. mooy quoi mooy mooy à peu am la prise en charge. Mm. dañ koy ji jàngalekat yi rek waaye médecin yi tamit saa yoo leen waxee xaalis rek noo def ñu ut échappatoire pour xaw ci génn. <laughs> <laughs> si si quand même on fait am une grande grande exception parce que comme na ma la ko waxee ça c'est une activité boo xam ne non xam nga lucrative parce que boo ñëwee place du souvenir dañ la koy loué kenn mayu la ko dañ la koy loué te boo fi àndee tamit ay nit tamit ñu war a lekk ñu war fi nekk tamit foog ñu lekk également boo mobiliser également tu as des informaticiens également tu es obligé exiger également nga fay leen. Mhm. à la limite euh, boo amee sa budget le budget on l'avait estimé à peu près quarante millions maintenant on n'a même pas la. la moitié moitié du budget. Mhm. donc da ngay également di jël sa xaalis yokk ci tamit. Mhm. fexe na daal boo wax quand il s'agit de de sortir de l'argent ñoom médecin am nañu seen ay super superfuge wala ay alternatives pour déjouer ko mbokku auditeurs yi jërë ngeen jëf ci ñu doon faratal di déglu ma fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé amoon mbégte ak bànneex doon dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Omar Gassama docteur Omar Gassama nekk euh, gynécologue colposcopiste ñu fas yéene amal bëccëg bu mag euh, vendredi tey ji 4 mars ak euh, suba incha le 5 mars loolu lépp rek ngir wax waxtaane jàngoro bi nga xamante ne moom mooy di cancer bu col de utérus jàngoro boobu nag mu nekk jàngoro boo xamante ne bu ñu sukkandikoo ba léegi ci suñu docteur bi nekk na jàngoro boo xamante ne dafa asymptomatique laata muy feeñ day fekk law na bu baax a baax ba moom moo waral sax moom muy sàkku ci soxna yi ñuy gën a farataal di def ay dépistage moom tamit bokk na ci li muy préconiser maanaam ñu vacciner xale yi nga xamante ne ñoom ñoo am 9 jàpp 13 ans parce que am na benn vaccin bu ñuy duppee vaccin Gardasil boo xamante ne disponible depuis 2018 ngir rek ñu aar xale yu jigéen yooyu lee fàttali ne yéen ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi si Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen bi beneen émission ak beneen invité